similion sejupae kugangar ama pikreti coronavirus coronavirus ko a sumutu kanu a bajuta ñine a ñine bajuta lifa bajuta ñine bajuta steak e eh, kaka ko sumutu kanu manje bukana tukugore banni baji ke bari sumu yene tere gudi ko kati coronavirus tate ten tembe ñaaji baji eh, pikire ñen ko nem vaccine yen manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangol na tanka fanga fayde ko sumutu kati covid Denmark Physiotherapy and Rehabilitation Clinic is the first of its kind in the Ghana. We have inpatient service and outpatient service. Denmark admits patients and they have intensive rehabilitations. That means treatment three times a day for five days from Mondays to Friday and on Fridays they go to their families to spend time with them to have family. Our patients come on regular appointments probably twice or three times in a week for treatment. We treat patients with arthritis, with back pain, stroke patients, fractures or after fracture operation, paralysis of all types, and we do treat both young and old patients. More Physiotherapy gives quality physiotherapy treatments to Gambians because we are qualified physios from different parts of the world. Washington, West African Center. Kibaru Dima. fale yillonne ko dindigol mel ɓe sañi luulu walla fo e santole se coronavirus penko tanole sag atare mon feñjo ahan kadi men sañji lulu kata sañji tan nen men oti e corona Washington, African Good news. Do you know that kids 5 years and up are now eligible to take the coronavirus vaccine for free? Yes, now, kids 5 years to 11 years and up can take the COVID 19 vaccine. It's simple and easy. Contact Washington West African Center. We will help your child get vaccinated.

wherever I sing.

Hakula Group def nañ lu am solo thank you di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci képp ku fi teew di leen remercier one more time di jaajëfal waa Sayon staff management bu Sayon thank you léegi nag bu ñu def ay kër yi di waat benn groupe ay kër ñu ñëw bëgg leen bëgg ngeen kontaan ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax di Mandinka groupe tàcc leen gaa ñu yegg Mandinka Group yegg si leen 15 minutes ngeen am ci stade bi bëggal yi ba ñu kontaan thank you monsieur DJ taaru moƴƴo hari hiɗa andi pay konkon duuɓi joyi ha du ha yesso no wawi ƴettude ndu pikiru coronavirus haraw yoɓali hay fuyi hihi pay konkon duuɓi joyi ha duuɓi sappo e goho no wawi ƴettude ndu pikiru coronavirus arayno de washington west african center ɓe waway o wallude ha payko mon kumpi ko hara ko yoɓali hay fuy groupe fulaji bo no salmina on no waɗa nde on ɗo message ɗi corona virus salmini on ɗo e nder duniya aduna allah on fof haray ɓe wawi min noddude e 253 235 2132 ma noddamen e 404 593 62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 Vaya, se macha allah kontaan nañ ci yéen saa su ne nii rek la demee gaañ yi moo aye tey muy rek launching bu exceptionnel léegi nag luy def rek dañuy dalal sunu mbokk Kasumay tàcc leen di coolaatu di yegsi Kasumay Kasumay ka.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

ka ho ma yi ano wula ka ho ma kato kalaase. Wula ka ho ma yi ano. Oh! Bogarsi, mu ñëw rekk gaaral ay monsieur Issa Bogarsi, tàccal ko baax a baax ku jeexal ci jàmm kon ñu dooree na ruddu di galgadal min kulli wiccatin bismi narmihi bil buudi bi sabat bu loolu weesoo nag dañ ma may 15 minutes loolu nag foo naa war naa mën a doy diplomate li fi indi mooy seedeel Musa Afia Gom doomam bi modi Fallou Ngom ak jarbaatam bi di musa Ngom Junior ñew na ñewat suma office jokkoog man bima nek america Amerika ma xam faami leen dama leen di bugg a nak story bo xamne dafa relu waye nak da fay jangal man amité school la nekkone Musa Ngom ñewon fa di ñu defal show show ba nak dañ defon ay crimping si assembly hall bi Musa ne ñun nañ fay tala ñu fayé tala wol ba de ko jël ko dimbalé ko ñu def ko suñ school fi bi hamga am nga school boy rek jamono joju tala sax problème la pour ñun Musa woy gis ñu ngee génnee crimping bi pour dugal bu ne léegi nañ génnee crintin bi ubbi bunta yi ubbi palanteer bi xanaa rek suñ amee free kon dinañ ko mën a may jàmm mu dal di duga nag mu woyal ñu fa woyu neex buga ñu nataalu ak ñun suñ masina dem ba yàlla def mu mag jarbaatam doomam ñëw ma ne leen ne na dinaa atel ñu ne waaye ñun buga nañ nga Garavai Kadu, Sedel Subai, Sedel Suidai. Uh, ah, Musa Agom, Dinakawachi English Tuti, he is not a singer. Musa is a teacher. He is a teacher of culture, a teacher of psychology, and a teacher of philosophy, and a teacher of theology. Koko moy Musa Ngom. Musa Ngom du Moussa Ngom jàngalekat la jàngalekati xelaat la jàngalekati adduna la jàngalekati dundin la jàngalekati diina la loolu moo ma fi teewloo tey itam bari na yoo xam ne ñun ñu tey it bàyyi ñu ne ñun daal ñu ngi ci yeneen waaye bii moom teewuñ fi pour fecc rek dem waaye dañ fi teew pour jànga dem Marissa Bokar Sina Moussa Ngom li ma boole moom du woy kese li ma leen wax ci story bi amité mu nga fa waaye su ma daan déglu woyam yi dafa am lu ma ciy jàngat te fan yi gis ngeen lu xew xëj na ñeen nañu si ñeen li nga xam ne dañ dee seetaan télévision yi gis ñu dem ba ci QTV ñu ngi koy jàngat li Musa doon woy suñ ko suuxatee ci suñ xol yi ñu jël ko ñu leerale ko suñ fitna du am digante sénégal ak gambia fitna du am digante guiné bissau ak fenen musa ñaari kawasami ñu bari dañ ko daan seet di ré waaye suma wasila cheikh tidiane si al mahdum amna lu musa wax dina ko abba ci wax bi ñu jàngat yëfi jikko musa ngom dafa am benn nasaraan bu ñëwoon ci Cheikh Tidiane ci al Maktoum mu ne ko li tax man yëf diina islam wala alquran mënuma koy naw parce que alquran dafa jaxasoo mu ne ko suñu waxee fii lii wax fii leneen Cheikh Tidiane ne teg di ko seetaan bu doxal du jote ñu dem ba ci diggi diggi àll bi mu ne ko ne nature est jolie, la nature est jolie. c'est français moyen, nature is beautiful. C'est Tidjansi Al-Maktoum Neko. Je n'aime pas la nature parce que la nature est désorganisée. Comme dit Mkowafi. On est non. On est comme beaucoup nature because nature is disorganized. Tout va bien Neko. Lolo Mota nature beautiful. C'est Tidjan Neko ta Al-Quran tam beautiful. Moussa, Lolo Ngay jangati Mom. nyari kawasu jaxasoo yooya ku xelam helam du ko mën a way ku xelam tey wala ko xam sa xol dafa tey doko ko mën da nga wara am xel mo xereñ xel mo ñaw xel mo leer xol bu la xol bo dafa dal na ko daan nak jangat ci Musa Moussa itam am na lu indi xam nga kat bi daf ko wax mu ne ku wer wi dar janta bi dar la asaman dar la suuf dar la legi dalu lo da nga wara a sa bok musa nak yoy la dajale di ñu wayal te limay ñaan yalla moy ci suratu yasin amna aya bu fa nek so len sele sulma di malik si mo fa nek ñu ngay ñaan yàlla mu taxañ Moussa si aaya bi di salaamun rawlan min rabbin rahimin mu dugal ko aljanna ñun la ñuy ñaan yàlla mu ña ñu ñaan yàlla nag mu dugal njabooti Moussa Ngom ak ñun ñi ñëpp ci biir lan mooy rabbana atina fi dunya hasana fi akhirati hasana wa qina adhaban nar mu di yàlla nañu yàlla defal al àdduna bu baax bu defal ñu alaxira bu baax mu musal ñu mbugali safar ya nga ko yalla musal musa ngom ne musa nak ku woyal president yi yeb woyal àdduna yépp kooku su ñew bu dem jot luma bizi bizi bizi manisa man isa si dina ñew ateen ko parce que lolu moy sukkali sa boppa te gambia ni dina invite nit ñi ci lenn Gambia dañu war a seetaat suñ bopp di ko ne réew nak du mëna dem ci amut icon soo déggee Africa identité tey ñëpp ekkati loxo di puugarewu Madiba Nelson Mandela la ak Patrice Emery Lumumba Amilcar Cabral ak ñoom Samora Machel ñooñu ñoo doon xeexal fii suñ maami fii nag Sénégal gii Cheikh Omar Foutiyou Tall Senegal la gambien Aladji Malik Sy suñ maam sénégalais la gambien wali yu nek ci bir gambie Aladji Baba Diallo ak ñew Boubacar Diallo yépp ñu ngi fi nit metti bo gis Moussa Wayna na ko mo nek artiste do daanu su fonké ligéyam waaye man dama abba Moussa woyam bi dama ne mathématicien daanu su calculation driver da nu su fonke dawal oto laka kadi du da nu su fonke fori te o wax kat ba dafa wax mu ku woddoo làmmiñ soo noppee rafle Musaa nag dafa woddoo làmmiñ mu woddoo xel ku woddoo xel nag soo xelaatul rafle looy dégg li may ñaan nit ñi mooy gannaaw buñ musa fii ci guddi gii fii nañ fexe nag mu sax te mu law te soo jëlee to tomba ci tool nga ji sa peppi gerte li la gënal mooy nga suuxa ko mu sax nga bay ko nga bayaat ko nga wottu ko nga góob ko nga gar Moussa liggéey na lim doo liggéey li ñu dajale fii tey du fàttale ku wëyami waaye fàttaleku xelaata bi la fàttaleku xam-xamam la tey war nañoo mun a jóg fii nag dégg ngeen ay doomi Gàmbi yoo xam ne dañ leen màggal fale ca Delaware State ku ci mel ni Omar Amadou Jallow ñu ne OJ tey te kooku mu fii ba United States of America Musa Ngum tuddee nañ ko gox ca Ziguinchor ñun am nañ ay doom yoo xam ne ñu ngi leen di tuddee ay mbedd ci picc kon nag Moussa Ngom boobu yëpp nag soo ko xëccee tey nga indi ko si Moussa Ngom Junior nga indi ko ci Fallou Ngom nga indi ko ci doomam bi nekk QTV nga indi ko ci woykati Gambia yi Moussa ci woy du siw Moussa si woy du ndaal Moussa du pot Moussa géej la géej nag danga cay dem nga napp ca nga lekk li nga napp nga dem ci géej nga fey fa sangu te mën nga fay sangu mbég mbég wala sangu fa set loolu yëpp mu ci Musa mën ngay jël géej nga suuxat sa tool suuxat sa naako kon nañ rootee ci Musa ñu fóot ci ñu naan ci ñu togg ci

su ko defee si kanam tuuti ñu continuer ak yéen di nga xamal Moussa Ngom Junior mi ngi fi bu loolu yëpp weesoo dina yegg si bëgg leen ba ngeen kontaan thank you I'm Thank you. dara sa kapo digali, Afrika gea, ya, ayo ayo promote, kuta ina hapi na musikwi na promote, sa ayo kama kwanu, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika gali, kafika

ma tornate mai in realtà, pensando che è che ci sa, ormai a dilettanti di gara, a buona. Ma in qua, qua, qua, se non hanno l'idea che ci montano, di un tempo tutti le direi, di fare non, non, non, non, non, Afrique pour nekk bi ak Sénégal ak Gambie ñoo ko tegu si commune nekk na benn waaw ñun ñu ngi dund loolu te loolu tamit ñu soxal la waaw ñun li ñu tax a jóg mooy liggéey bi faral di soo moo tax ñun li mu soxla moom la pare Fada dafa nekk nit koo xam ne affaire Merci. Thank you. This game documentary we are from the Musa Afyogam, Mabangin Tachubaba, Alamu. Thank you for coming tonight. You can get the ball, get the tail, you can touch it one more time. Can I must send nag li ñu def rek dañuy ñëw dalal ki nga xam ne rek moo ñu fi dajale tey ci guddi gi muy artiste bi nga xam ne nee naa la jëm soo ko gisee dafa mel ne rek yaa ngi jàkkaarloo Moussa Afyogam moom ak Assa ba bëgg ngeen tàcc bu Don't you know we see bigger than you know? tonight, sir? What's that called? She knows. 哦，不要这个，你这个下午。

sant rek di leen wax ne toogaay bi rafet na te apprécié nañ école bi ngeen jël ba ak chef yi nii pour gis nañ ne event bi nii successful na jërëjëf taguna mbaaru tagoti mbaa singa jëli ma fa tingara tingara loo tite ma fay di mbaa jaay ewaay eh lenge fett ma lenge ku ma xam yónni woon ada giliñ jaay dana ci ma giliñ jaay ma doon dan di ma daan du ma xool daamaan yàlla si si koli yàlla ya si paxati li koli koli asmaani njaay kaay eh fay di tak na baar aluma yaay yot si ya tak tak

Kainani Baroja, Kainani Salak Baroja, Kainani Baroja, Kainani Baroja, Kainani Baroja, Kainani Baroja, Kainani Baroja,

Kainani Balo, Yo, the Bible says, is your love.

Kule tam kule tanawai. Nayum nayum so. Nayum nayum so. Sapu nakas kandila kasalam lubar. So yo nayum nayum so. Nayum nayum sapu sapu nakas kandila kasalam lubar. Na chala na ruban bi na chala. Na ruban bi na chala. Nikani rajay asana ruban bi na jërëjëf Faye ñu jokkale ku ñëwaat ah Thank you. Musangom Chino, Tachang Barba, BJL TA20O. You are blocking someone's car, BJL TA20 and BJL 2449W. You are blocking someone's car. Please move your car. The judgeable Kim Kuviteo, the judge judgeable Mr. Chang, El Presidente, Bugambia Racing Association, the judge judgeable Setewa, Kim Kohamagagi Teo.

ñu ngi lay jaajëfal euh, asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal ci seen teewaay bi euh, léegi luñ bugg def mooy ne dañ bugg joxe certificate of appreciation euh, ku ñëw njëkk a mooy Mbaye Gueye oncle Mbaye Gueye tàccul leen ko waay dinañ honorable Essa Bokar Si mu ñoo joxe certificat bi bay leen Photographer, please be on standby. loolu la xamee di ko sant waaw di nangu magal ma koy di ko ñaanal fi yang bugg a àgg fa di ko gërëm di ko sant su baraka boo boo xam la fiñ ko jaarale ci bi xam na ko te yëg na ko moo tax bi si tey mu màggal na ko jërëjëf Mokul Baye um, next moo nekk uh, honorable Issa Bokar Sy ñu ngi oo um, Fallou Fallou moo nekk uh, manager Moussa Junior bi والحمد لله رب العالمين di sant yàlla nag jërë ngeen jëf yéen ñi teew fii yëpp man nag dama dee di moo sama léeg-léeg kon naa ma ne alhamdulilahi ala kulli haal jërëjëf Um, next, one of our, our group, our group, so we can please come on stage.

The same person. There it is. Pa Omar Jack. Pa Omar Jack. Thank you. Je ne suis pas en train d'écouter Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. kii mooy soxna May Alassane Gome family Gome family Gome family Roman family. Thank you. vai ao mais E mais criança? que mais criança? Maria Juqueta, só vender aqui, please. Eu nunca vou lá. Zé Samba. Ser Samba. Ibrahim Jawa. Ibrahim Ajawo. Halang Records. Halang Records. Ibrahim aja awak. Hal yang Abdul Aziz An. Abdul Aziz Al. Babacari Touré. Babacari Touré. Gambia Talent TV. Gamia Talent TV. Sering Omar Sol. Seri Omar Sow. Seri Omar Sow. Aziz Dixon. Aziz Dixon. Aziz Dixon. Zion Bakery and Pasta. Huh? We need Mr. So on stage, please. Zion Berkeley. Zion Berkeley. Mohammed Sofineke, please come on stage. We don't love her. No to tribalism. See. No to tribalism. Lolo am na solo torop parce que Gambie xamuñ luy tribalism ñun xamuñ luy tribalism ñun luñ xam unity Ah, Gambia is known for peace and unity. Thank you. Thank you very much. We really appreciate this, my fellow Gambians. content my top, because bu ñoo am lii bi commencé group. Group bi I'm na leaving one year in the Gambia we are trying to stop the tribal insult and tribalism loolu lañ bugg a bàyyi ci Gambia te dem ba meet the, all the political parties Doudou Ndiaye moom fii Doudou Ndiaye is my witness. We meet Halifa Sallah. We meet all the political parties in the Gambia pour ñu bàyyi tribal insult tribalism ñun ñooy Gambia one Gambia one people na leen ko téye noonu ñu kontaan Gambia benn lañ fu ñu mënta dem we are one dañoo xuloo waaye duñ xeex so dama bëgg rek ñu ñaan the whole Gambian people one people one Gambia, one people, one nation. ñu ne ca benn politique jarut haajaañu jaru ko politique o man suula pour talan dammaalu ndol be killing ñeyaji ɓe jang how we are happy today because different tribes mofinyu, fi ñëw sarahule joola mandinka fula and the others so seeral a regum neexee very nice everybody enjoyed it nga xamne ne Gambie amul xaaja groupe bi kep ko xamne da nga bëgg a nga fa dugga téléphone number bi yam fa if you need it you can join and all come together and talk about it ñu ngi try bu baaxa a kum nekkani saga xet kay mom génne na si ana yi nekk si bitim réew ñoo dee saga waaye di Gambie here nobody insult tribal again so tribalism bi dañ ko wara a ñu ñoo de sey ñu ñoo de sey ñu ñoo nekk benn should any compound to register Gambia fee. It don't affect us, sa cousin or sa sister or sa brother. To any tribe. You get saying in your nation. So I'm thanking everybody for coming here to promote the Bahnatara containment. I'm thanking everybody again. Once again, thank you very, very much. I never meet you, Abu Bakr C. Today is the first time I'm meeting you, but I'm very proud. I'm happy I heard about you. A lot of people here, I don't know them, but now today I'm happy because I'm with all ethnic people here. So thank you very much for Gambian people. Nile Japan, Nile Nekabena. I'm thanking everybody. The Masala, Musangam I need you here right now, please. If you can be here. And uh, Samba, can I get the t-shirt, please? Musa continue. Can I see? Can you come please on stage? Hey, you look good with that. jërëjëf loolu saa ñu am flag bi peace for all no tribal insult and no tribalism I'm a Gambian let's proud to be a Gambians lol lañ dee bugga ku la laajte yow fan la nga nekk man Gambian laa loolu doy nañu ay nga wokke Sénégal dañ day ñëw Sénégal yi si loolu Sénégal yi waxee ko soo ko laajtee rek mën na la lay ami Sénégalais so why not Gambian you say I'm a Gambian very simple yeah Okay, uh, is a present to Musangam Junior. This is for you. This is for all. An oppressor, not tribal insult. I am a Gambian, and not tribalism Nana ko tiye noonu ñu kontaan. Gambia is a happy country. Naa leen kontaan yàlla may Thank you very very much for you. Yeah, this is for you. Huh? All right. Man may Keba said, I'm the chairman of the of Gambia operational tribal, international tribalism. KBRC say. Dear thank you very much for the Gambian people to come. Thank you. Thank you, Ms. Makera. Zion Bakery and Fast Thank you. Aziz Dixit. Maastu vai Maastu Faye. Fat ele é ne nga ñëw jël si ko. Ah, Mën ngaa réfugié Maastu. Delinquents. Delinquents. Thank you. Ah, masalah saja di rakyat Pak. Guinea pigs. Ibrahim Anyas. Ibrahim Anyas. Akasa family, uh, yan yan, you sold as a baby, you sold traditional RPD, yan yet you are all needed here on stage. Akasa family, team Akasa. Both cultural outfit team. Group Sosei, Group Malafi,

your organization, They are the people behind the success of this event today. am senior team am junior team senior team yi ñoo sol lu junior team yi ñoo sol cultural outfit bi bëgg naa képp ku fi toog tey ngeen tàccul under the leadership of Atiku Kumijaro, Ati Ramatulai, Ati Francis Maria Tuwo, Ati Dia Banganamiu, serta Hawaii Rosana, Kota Mencil, Wabeni Kalabai Makan Kalau, serta Hawaii Rosana, Waya Duma, Duma Ficuke, Satu apa Boki Politisian ini, Bang Fitis Honorable Duduja, Why Ate Matsumawa Party by PPP, People's Progressive Party, the women president, me presently. Why Janaba Bani called you? Because that's the little girl. Yiga Tio Masaka, Akasa, sorry. Certificate of appreciation.

Atiku Migalo Mamoli TV. Mamona ka president of Akasa family bi. Mamidi wahaya my vice president mato ko si Atiku mi. Hana dole matra chunda chunda ma. Mashallah jere jere. Ibrahim Yes.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم بقي كيفي سبسي لها بكيتا مساكم جنيو بي maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ak nekk ci yéen ci turam ci jëmmam ak ci santam ange jiital ci nuyoo bi nag xam dem na suma koro alhaji Essa Boucar Sy nga xam ne ndeysaan uh, ma mom la woon ñu waxtaan lu sori boobu nga Amérique uh, ma man maa ngi nekk London may yëg lu bare bare bare bare ci moom mu nekk borom xam-xam bu mag ci wàllu nasaraan ak ci wàllu aada nekk sët ci almaami Maba Jaxu Ba ku nekk xam ne Maba Jaxu rôle bi nga xam ne play na ko bu tasaale islam si tund Sénégal bi nga xam ne moo fekkoon man sa balibu jële ba maroon dal di moom nangu balibu dégg ko ay nijam moom moo song buur siin dal di moom nangu jigéenam Selbe Diouf moom Tafsir Maba moo xeex ak Bar Saalum Kumba Ndaama Mbóoj dal koy daal mokkal siin ak Saalum yëpp ñuy wax Saalum Serigne ak Saalum Cerno moom nak Saalum Serigne moom mooy ki nga xamne moy mooy eh, woon njiit boobu maam la ci Essa bokkar si xari boobu di gërëm nag laxaani Essa Bom jëliyo ak bokkam yi ñoom Mbaye geey ndax nah, nit la ko xamne fi ma tek man xam ne ah waxtu wu nekk rek dina ñew ci man ñuy waxtaan ci bir ñi nga xamne mom la nek di yëngatu Euh, nit la koo xam ne dara ñoru ko lu may aada ak cosaan waaye dama ko la xam ne li nga bi politiciens yi ay mag taraay nañ ko munuñ ko mooy dajale xeet yi Sénégal bi am yëpp tey ci benn ron mbaar ku nekk wane sa aada ak sa cosaan ak fi nga mënee tey ñëpp ñoo kontaan ma toog di nekk si diaspora bi di ko seetaan seetaan nañ ma seen ay message di wane seen contacté ah, ñoom coach Pa Samba Diaw Diop Malick léegi la fi jógee moom itamit yu mel nii ci lay yëngatu every year mu organise cultural festival in London foofu ñun ñii ñoo koy taxawee moom itamit lu la xam ne keetam mi sànq kenn du ko si jiir xam nag dafa newoon ñu wax ci cosaan ci wàllu mbaar ci wàllu lël muy yoon bi nga xam ne moom la jël pour fas yéene mu nekk carrière ci wàllu aar ndax euh, ñoom maam dañ fi ñëwoon démb jël garab euh, jiko ñoom bàyyi wax dëgg ne yàlla euh, jëmbat ko mu des ñun nag ñun ñu war a roose loolu ñu ne bépp benn jëmmi jamono mu mel ne aada boobu ak cosaan boobu dafa mel ni lu xaw a dee wala lu ñu rey nek ci wo bo tam du jermel jermel bu ko ala waxe moy lo xam dafa baare da doon jur do ci yalla bo tam du jermel mo indi mu nak ñu melni ñom euh Moussa jini yo la xam mu ne mom ay nijaayam mu melni bala bala musa de dégg ngeen esa bokkar ci li wax ci mom musa Ngom lim fi wëyi bayyi ko fi borom juma yaa xumba waré kat ngi cee waare ndax wëyam yépp jangalé la wéyam yëpp xam-xam la moo tax insaane Moussa Ngom nekkutoon wéykat waaye jàngalekat la woon éduqué mun ngaa toog every day nga def émission ci benn wéyu Moussa Ngom mu jàngal la àddina ak li ci biira fàttaliku naa benn wéyam muy wax ne bu mbindeef moomoon naaj ma bugg a weer suma jiit bi damay fay wax na dëgg lépp xam ne am na njëriñ rek ci kaw suuf loo xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk ci dundam su ko amul dee yàlla daf ko jël def ko doomu aadama firi bokk na ci jaww ji oxygène bi su loo gis ku ko dem na ci naaj bi nga xam ne mooy saxal gàncax gi gis ku dem jënd ko ah bokk na ci ndox muy nii ñuy naan njëgi ndox ak njëgi euh, lis cologne wala njëgi beneen drink moo gën a yomb ndax foo dem am ndax mënut a ñàkk ci dund doomu aadama toog di ko faram fàcce lii nag daf di aada ak cosaan ñoom ma bàyyi ñu ko démb ak barki démb ah daan ko daan use pour jamono boobu amul distancière institution maanaam barab yi jànguwaay yoo xam ne dañ faa jàng xam-xam ñu xam ne doom bu góor bu demee ne bu góor am juróom-ñetti at jàpp fukki at dañ ko war a dugal néegi góor nandal ko génne ko ci ron ndeyam ak baayam yóbbu ko ci àll bi ay selbe yor ko liñ ko xamal foofu mooy àddina bu génnee nekk ci àdduna naka la war doxee ci kaw suuf naka la war a jëflanteeg doomi aadama yi naka la war a jëflanteeg ñi ko mag naka la war a jëflanteeg ko féete suuf naka la jëf war a jëflanteeg nga xam ne ay kilifaam moo tax liñ ne dañ di ko wóyal bari duñ ko wóy mooy ngaaringañaan ngaari ngañ wuy nga dégg ñu naan bëggu rek woy woowu rek dañ koo jël dem di la ci yett ya, bu la yàlla génnee eh, na nga moytu wuyu yi ndax dañuy sàcc jiin la jiin la ko doomi góor dal di eh, yàq bu la yàlla génnee sa maasi baay yi def leen baay sa maasi yaay def leen yaay wax ma yedda wu rafet bi fan la ko nit mën a la ko jàngal ci school yii lañ daan jàngal xale yi ba pare di la jàngal di communiquer ak yow te lan di jóg ñu xool la si bët am lu miin wala ñu wax ay kàddu sant ay bayti nga xam ñii lan lañ ma bëgg a wax su ko defee nga dal di jëfee loolu loolu la mbaar daan tëriñ su ko defee dina daan tax xale yi di dugg ci li nga xam ne euh, baaxut li leen di yàqa wala leen di tuxi wala di def naka su dóoru noonu ñu tënkale nag ci benn baar dal di leen jàngal àdduna jàngal leen aada jàngal leen cosaan te si biir baar boobu su fa nekkee dinañ leen jàngal diine xam naa ñoom lan ñoom la xam ne si ñëwee dinañ leen wóyal naka la julli yi doon nommee su fajar si njaay yeewu leen doomi ganaar sab na mu doomi ganaar sabee doomi jigéen xéerooti bootal jubal julli fajar xar xam li xànka bi naan soxna xari jata ma ci ndox mi ma jappati julli waxtu wi jot non la laan li xamee bu ko defé ñu talal loxo ñu dóor ko ñaari leng mu dal ni sëlmi li yëpp ñu laa jàngal ni jamono bo ci génne bo génnee ba ah dina am lu neex dina am lu taxal te di nga wara da nga wara a sàmm diine ndox ci yooni diine li nga xam ne la la islam sant motax ñu la jangal julli di netale ay xisa yo xamné ah soo ko déggee dafa mel ni ay fiction waaye loolu lépp liggéey bu ko ubbi sa brain bi ubbi sa xel bi nga xam ne boo euh, jamono bi ko mag ñi daan def boo génnaan mbaar rek dañ laa dugal school nga taal farang nga nga boole nag li euh, ko nag ci school bi li nga xam mooy sa morom mu doon lu am am am solo loo xam ne la xam ne keeta am naa gis na ne ndeysaan nañ ko bugg a rey te mboolem xeet yi am nañ ko soo demee ci xeeti euh, soose yi mandinka yi joolaa yi gis ngeen seen performance amoon na sax jàppoon naa ay woy ci baari soose pura min be konkoto pura ñaadomoni sana keeta ñaadomoni ngan sin den ko gogoli falmamoy ban fonoke amma noonu la ñaa ee juli jamono lu ma firi waaye ñoom itamit amoon nañ seen cosaan amoon nañ seen euh, aat léegi nag gis nañ ne fu nekk ni cosaan bi tey ki nga xam ne am na 25 and below wax dëgg yàlla xamu liñ koy woy sax xamoo loolu nag euh, dañ war a taxaw euh, nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo saytu wàllu aada ak cosaan culture ñu dekkali ko ba pare may ñaan xam naa ñu seetaan fu ma dem dinaa ko fa wax. Gambie fii mosoon nañ fi am na ñuy wax national troupe national troupe dafa dajale woon mbooleem xeet euh, yu Gambie Sénégal yi am su festival amee ku nekk woy sa woy xeet mu nekkoon lu rafet rafet waaye dañ ko ba mu si la. No du tribalisme juddu tribalisme yi nga xamu ko wax xamuñ ko media bi rek fu nekk ni sax ñoo ko wax waaye ñu neen suñ biir ñun dunduñ ko waaye bañ bàyyee foog national truth si la nit ñi gis tribal sentiment tribal bigotry muy du am suñu diggante ñu ni nen waaye loolu mu sutoon am fii ci réew mi ma mbay nga yem fii duñ ma bàyyi ma fekk ña amoon sosoon national truth bi suñ mag yooyu leen maire yooyu ñoom Adja Awa Samuel Ndiaye ñoom Adi Kombe Mbaye ñoom Anti Thiou ba tey ñu fi di dundal gannaaw ñooñu ñoom Mbaye ñoo ñëwoon jël relève bi fu ne dem nañ fa tukki Amérique yóbbu na sama tur bi foofu wane cosaan ak aada Gambie yow boo fi jógee nekk woykat di toppandoo ak Michael Jackson fekk 300 millions Sénégal Amérique ñu nga fële gis nañ Michael Jackson duñ la faale boo fi jógee nekk ay ab woykat di toppandoo Bob Marley boo demee jamee ka gis ku la dax a woy fuuf te kenn dégluwul ku la dax a patoo fuuf te kenn dégluwul nga nekk fii nag sa réew mi am fi sa aada am fi suñ géwél yu mag yi nga xam ne lu nekk xam ne ko ñu ko xam toog waaye xale yi demuñ ci ñoom naaj ne léegi seen wuyu nañ ma baal euh, ni ko ne taalibe boo ko dégloo neexut a si nopp wax dëgg na yàlla taalib fi nekk ni kenn xamul du mag ñaa ngi fi ñu dem jublu leen su ko defee nag ñu leen di jàngal aada ak cosaan la xam ne nag Moussa Ngom Junior moom mu ngi dox tànk yooyu jéego yooyu te ma ko wax na yoon bi lu mu suru sori doxal ko kees faw nga aga te bo àggee ñii la top doon nañ ne su ma yëgoon ma topp ko parce que li am na ni ko bugga ñu ko top ci kër yi fu nekk ni dañ la dund di joy ñu ko feñal am na ñoo xam ne mënatu ñoo dem waye li daf leen di dundal bugga nañ ko euh julli yi li nga gis ñu ngeen ni nii eh, liñ magante ni yëpp am nañ tu am na tox mbaar am na lamdo mbaar am na góli mbaar amna na ba amna xaban ba amna taxet ba mbaar ñoom ñëpp kon euh ñu talif ay woy yo xamni woy bu nek rek ci kasak daf la jangal deug ngeen woy ci kasak ka di xamal ngeen ko dégg ci ñoom bay gay ñi ngi nan Sira Manding ak ci Mbassar bañ dajé allu jaax ya. imaginary place la rek ñi ngi wane jam goor ak jigéen fu ñu dajé ñoom ñaar ci bugante bugante bobu li mo indi moy buñ see see boobu li mu indi moo ñu jur doom doom yooyu bu nekkee góor bu demee ba mu góor ñu yóbbu ko dugal ko léegi góor jàngal ko àdduna soo gisee léegi xale yi liñ nekkee ñu bëri nañ bàyyi aada bi ak cosaan bi ñi nga xam jaar nañ ci baar réellement dañoo dañ nga jamono ji da gis ku social media àdduna ya, yëpp wër ko mu guddi fu guddi gën a ñaawee wax saaga wu tox ci ndoxi nga abadan nga am muñ koo xam ne maanaam day tànn koo xam ne nañ ko ci mbaar lu def loolu suy xuloo muy wax bu mag ñëwee dafa wàcc euh, su doon saaga seen may géey saaga woo daf koo war a doon génnati léegi da ngaa téye nag microphone jàkkaarloo àddina yëpp ñu laa déglu nga sa fu saaga gën a ñaawee nga wax ko fu xaste gën a ñaawee fu wax lu bon gën a ñaawee mel ni loolu dañ la si war a dux awoon wala dañ la si tàcc gis nga certificat yi ñu ko fi jox yéen dafa ko fi benn saaga joxuñ ko fi kenn ku am euh, tribal bigotry si moom kon leneen ñu leen di ñaan xale yi euh, aada ak cosaan lu am solo lu am foor la loolu moom mooy euh, amee réew mooy suqali réew tubaab bi boo demee seen réew duñ bàyyi seen aada duñ bàyyi seen cosaan waxtu wu nekk rek ñu ngi koo dundal xëj na ñun ñoo ko xamul kon ñun nag war a ñoo mujjee pour bi mu réeree si suñu loxo kon ñu ngi wax Moussa Ngom Junior la xam ne jaaraama jërëjëf doxal yal na yàlla leeral yoon bi te yal na ni yoon lépp loo xam ne sa nijaay bi nga xam ne mooy sa mentor moom nga teg sa bët ak fa woon rek yàlla la fa yàlla àggale bi nga foofu euh, wax dëgg ne yàlla kontaan nañ ci yow ñun xamuñ dara ah, bokkaluñ dara waaye xeebuloo tuuti mi nga xam ne yàlla jox nañu ko ci wàllu aar ak ci wàllu aada ak cosaan ak euh, Lamine Ndiaye ñu la gërëm Amadou ñu la gërëm Ah, di nuyu honorable euh, Doudou Dia ndax dégg na yàlla moom tamit suñ rakkala ndax ñoo magam ñoo dëkk fële ca London ah, ci jotaay bi ah, di nuyu di wax ne wax neexul ja alhamdulilah daf ñu ko sant waaye lépp loo xam ne dugal ñu dafay wax rek xam naa du fi xëj bëgg guddal moo tax ñu ne ñu emale fi wax bi lépp loo xam ne dégg ngeen te yàqu te neexul xam leen ci mag la waaye bu rafetee ci yàlla mi nga xam ne moo rafetal moo leen ne dafa taaru wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin thank you tàcculeen aji màkk bu baax a baax merci di kontaan rek ci teewaay bi di jaajëfal sama xarit sama doomu ndey ya Mame Diarra Productions bi ci guddi gi tey xam ngeen Mame Diarra Productions Matrago

waaye sax saraxu lay waaye nee naa leen mooy làkk boo xam ne boo nekkul ba suur doo ko mën a làkk xam man soo soxla saraxule la mais saraxule bu déggul saraxule kon merci à vous merci ci Pape Malick Mbaye Pape Mame Diallo production sa gis nañ sa jàppale ci ndaw réew mi gis nañ sa jàppale ci bépp askan merci one more time Matragon Pape Mame Diallo production sa doomu ndey Wally Ballago Seck yow ba ñëpp ragalee yow yaa ñemee jël Wally ànd moom tournée internationale indi ko ci Gambia ba ñëpp xam tey Wally Ballago Seck kon merci à vous Pape Malick Mbaye suma doomu ndey foo ne fu ne war nañ laa jaajëfal delloo la jukkal parce que sa liggéey rafet na ci mbiru réew li nga defal attaque ñëpp a koy wax tax nga attaque am oto bu rafet tax nga attaque jëndal yaayam kër bu rafet kon kàcc leen Pape Malick Mbaye waa Mame Diarra Productions merci Pape Malick Mbaye sa liggéey léegi nag muy def dañuy dugal sunu naanaan Moussa doom ci ñoom mu yegg si waat dégg leen ba ngeen kontaan acca doom ak sa nandun dapat. Posso mamãe, é a mama da gay. E eu celular se postei de filho. Vai gay. live nice. sàcc leen sunu oncle Mbaye Gueye bu baax a baax yàlla nga fi yàgg sa wér kenn du yow oncle léegi nag euh, dañuy dalal rek sunu ndaanaan Moussa Ngom ci ñoom ak saa mu yegg si bégal leen di jaajëfal Fallou Ngom bépp Media House bu fi nekk waa QTV waa Gambe bepp media house di ngi lay jaajëfal baax baax di nga xamay ne ñu ngi live rek ci jambe talent TV This is. Thank you. وكاية شنكم عاني من وما ترقموا كرسي رياس كل كل يوم دلنجلن زين باكو بلكو بل بل في بيتو نجابو داركم بسيط بل بل كسد بسيط لنبيجي لا تدي وكيفون بل انت ورو ورو لا تدي taxantele kangaten kay gaay ngi sore ma tar ku boy kur ku boy asan ku len dam ni sayo taxantele gaay ci nek ani men sore taxantele gaay ci nek ani men sore la xami ngom gaay ci nek ani men sore ma tar ku bo kur sore asan ku len dam ni sayo Lai tanu ye ye, anu kumbamat na lai tanu ye ye. Ay dambayi bagan ako, ngone so sa bëgg naa la jaamu yéen. waaw sama doom bi bëgg naa leen taanu yéen. waaw maasaay sa bay xam ko taanu yéen yéen. adam sa yaay xam ko taanu yéen yéen. keyay sa bay xam naa ko taanu yéen waaw. Manetunga gandala tanu ye, chance saluka mami kranu ye, mami ni joy tano pe kunyu tanu ye, salu le ni joy tano pe kunyu tanu ye, soko kami kamna ko tanu ye, soko kami kamna ko tanu ye, manda toloi kesela ganya, manetunga gandala tanu ye, kundur sanale marjai, kundur

gal kini porgal xana mbesim tambo osi tambo sira sanga sa kiri irom rilom den solen taxin nga moo bàyyi sa nekkoon aanam men xale tar gumba kursire yaasin kula danga fayoo serero kumbel kumbel bel melo kume koone ga moo jaa dam basire ambel mel ca sak basi nga diijee laata bi bukki bol bay am ca wóor woro woro laata bi xaajale kanga ya Watu bile kavmi madine simbada simbada Nilinoto ya nilinoto Tona utina tasabata tentamayon Manu mama Pita hon dum kurungut pita hon dum kurungut pita hon

kesa makana kota nuye ye aina mai kota nuye ye nuye ye kota nuye ye ye me matur bagana kota nuye me kota nuye ye mitiyo mitiyo mitiyo mitiyo mitiyo mitiyo mitiyo Yugamitiyo, Gaya Zaman Hamna Kota, Gaya Zaman Hamna Kota, Anuna Nata, Yay. Teroy, Amayan de Jai, Mayan de Mbar, Jai, Mayan de Jai, Mayan de Mbar, Jai. Teroy, Amayan nagay, amayan kumbangay. Hey, ring nagay, ring nagay. Aliyay, way ale, aliyay. Aliyay, way ale, aliyay. Kumbajige nagabalibig. kañ si rek maa jigéen waaw kumba jigéen na nga bal kañ si maa jigéen soosay suma maam piramati gi sax ñun dañuy fooy ak yéen soosay suma maam piramati gi sax ñun tey ñu fooy ak yéen man dama tukkat ci càgga biir ma dellu tukkat jor ñetta fer man doppi ci nekk ak ñetti xar fii ku fi biirati man du ma ñetti sama yaay boy dafa màgget sama baay boy dafa màgget sama yaay boy dafa màgget sama baay boy dafa màgget affaire sama ndi ñu nekk fii ku fi diirati man du mu ngente séeréer ooy séeréer ooy ay na nan si doose ay na nan si doose ana ema ana faatu fa yëngam ay da mbay moo ay da mbay mbay du mooy sa baay ngoone soose ngoone soose soose ngoone maa soose anam may waay maa say sa baay soose mooy sa amar ak ñeene bokk ndey baay amar soose amar gay soose mama fi ema ema wool ma ema gaal ema baal wool ma ema baal lee saara njaay agam muñu soo munte yi kikilu sabaay manta yeek sama mama dam yeek teena Buyana Hachaka, Tangraya Hachaka, Yapukai Hachakanai, Pandas Tower and teg ma jigéen Ema Faal wool ma Ema Faal Ema Faal wool ma Ema Faal buñu ko du wecci ngay ma diggan sama ndax ngay sama maam buñu ko du ngay ma diggan sama ndax ngay sama faj feere bu tooj di fem tooj di fem tooj di fem

Sista Fatou Ngom daa bëggoon ñu join na si costume événement saa yu ma ko saa yu ma ko bëggee bu baax rek ñoo wéeru ma bëggoon ngeen tàccu ma xëy ma amoo ñoo jox ma benn songam ñëpp tey kontaan rek si bés bi tey di ñaanal Junior Sangom lim suma nii dama ko si dégg yàmmawaay waaw ah, mu buñ cee am daal mu jéggi njortaan waaw loolu laa koy ñaan mu dawal nii rek mu leen benn traak rek mu mun a ah.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

Move, I can live. Nichingale, breathe down on him, Nelly. Nichingale, breathe down on the Nelly. Hey, I am now, hey, I boobu kau koo bàyyi mu baaxantal tuuti waaw ko suma waay la suma nit la jali rapa daanaka kii moo dugal si salaamaaleykum ana ana ba la ñolu bawo tulo ko man sobe sila wato sutiyata to mandi e eh, arsi bulo ko sela haɓen ketaye ali bulo ko saye baɗo e eh, surwa ko du ba yona nanan la yalla ko jikko ko gis mo sa goma xol ko di nga xam na la la demoon rek mo den si waat kon la war rek ok bo ah la xamee naata tolundula everybody la fara leen déemaana tam Dibidi sibita sidabada. Lohei, aha. Everybody come again, man. Lamini barana Teta barana Maria tokoro Laminata tulundola. Fernando, Fernanda, Fernanda, ye mama. Hey, teta barana tulundola. Everybody, everybody, let's Aminata, dunundula, aminata. Dahamini barana, dunundula, dahamini barana, aminata, dunundula, aminata, dunundula, aminata, dunundula, aminata, dunundula,

Siapa ni buat buat lebih terlebih ala Amerika tak. Ia ala ala Amerika tak. Itu lebih rojoto. Maria tu kita tu deh. Itu lebih rojoto. Mereka jadi mereka mah. Nama kita, sama kita, wari kita, lebih terlebih boulot ko saye ala boulot ko sina familier eh doko lu ma gën a toppal ma ñëw ci mom ni la ko doon ñaan yalla bu dig ko eh anda bu eh, yàgg bi dëgg la ñu nekk suñu ginnaaw yi ay suñu mak yi eh foloo ko nekk mak bu baax ak délégation bi loolu la ko ma ko ak sa gra su ba xere da ngay dem ndax ñu nekk sa ginnaaw dafa ñàkk iñaan foloo ko bi ñëpp xam nañ ko c'est que Seydina Mohamed sama toba sallallahu alaihi wasallam dama bekk ci moom ndax la xamee xol baa rafet te nag borom xol bu baax ci kaw ci kanam rek afiya mu nga dund ba léegi law ba toore sa kàttan Seydina Muhammad di ko jëlee ñu ñanga ak sama yaay ju baax yi e eh, ala baraka ci la xorom ko ala kana kala barke afiya yàlla na ci ko kàttan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala baraka Thank you.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 jaliba manden korona muna muto nyaledi ngal jalolu na da ganyine badie anim fana mo million jama jama walle bengo ge kabolo bay goru kan ah nde jaliba velen nin jalolu na da Jami ne na suso, mandinka. Fankanta hanjawuya, se fankanta ye sinyolu kanta. Ninna fa fomu fankanto leti. Alungata. Tekungau, wala. Nangi domu adama vaksinu Corona Coronalu amla. Fagaro gen fajo, ajalel nyudem vaksinu.

Changera vaccine, on ninta. Soyons sérieux avec ces vaccins si on se donne la main. Fonce tangani courant. Mandinka. Na, alingata. Me vaccine, me batuka. Anna, alingata. Oye bintangala. Na, alingata. Me vaccine, me batuka.

manjago onoro tonoro ninja legi yange kabu kobula kitop jaka jeji binguwa jaka burbu kabu buru alu badara wolof kuni anga waru gal jiliye jarul tobi xaar vaccine amna jogal jeli ko waaw aral sunu reew sambu susu mandinka amin

kaay leen ñu jëli ko mooy li ñuy aar